wa ala alihi tahirin wa ashaabihi wa jamii attaabiin mbokk yi ginnaaw bañ sant yàlla julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar macha allah di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla defal jàmm te defal ñu tawfiq mbokk yi jàmm ci la lépp xaj boo amul jàmm amuloo dara mais soo ko amee ñàkkoo dara yàlla nañu yàlla defal tawfiq tawfiq mooy yàlla dimbali la nga di ko jaamu jaamu nga neex ci sa xol te loo jaamu doo ci gis sa bopp te loo jaamu nangul la ko kooku mbokk yi yàlla ñu ko yàlla defal ñëpp ci barke bi te nañu bëgg a waxtaan ak yéen ci uh, ilmu tasawuf muy yoon wi nga xam ne góor yàlla yu baari ci lañu jaare ba yegg ci seen borom jubóog seen borom làq seen ngërmande boroom bari nañ nag waaye mu tudd rek ñi ci senegal ci réew mi ñu ne tabaarakallahu ku mel ni sunu maam Cheikh Alxaaji Omar al Fuuti ku mel ni sunu maam Cheikh Sidi Alxaaji Malick ku mel ni sunu maam maam Limaamu ku mel ni sunu maam Cheikhul Xadim Abdoulaye Niass Baye Niass ak ñu mel ni ñoom hmm, tabaarakallahu nit yàlla yu bari ci réew mi di Sénégal yoon woowu lañu jaar tasawuf nag buñ ko waxee ilmun bihi yurafu kayfiyatu tasfiyat al batin min uyubi nafsi suñu waxee tasawuf mooy xam-xam bi nga xamee bi nga xam ne ci lañuy xamee naka la ñuy sellal biiru nit ki ba mu mucc ci ayibu bakkan mooy xam-xam bi nga xam ne dalay jël defar la defar la ba nga xam ne fa tabaarakallah dootoo topp bànneexu bakkan dootoo topp lépp luy ayibal bakkan wa sifaatiha mooy xam-xam bi nga xam ne daf lay jàngal ba nga xam melokanu bakkan yi nga xam dañ ko ngañi mu joxal exemple ne kal xeqadi lu mel ni soxor ay mutasawuf moy xam-xam bi nga xam ne fay fexé ba soxor du nek ci yow wal hasad ak kinyan de fexé ba kinyan du nek ci yow te ñol màkka al na la yasud ku iñan du don sang kon so bëggee don sang da ngay fexé ba mucc ci kinyan ay mutasawuf nak dina la dimbali ba kinyan go nga mën caa mucc wal xëcc ak ger ger baaxul man xëcc fa laysa minna waaw njool maaka ne na képp kuy ger bokkoo ci ñun waaye ilmu tasawuf dina dimbali ba doo ger ndax ger mbokk yi baaxul wal xill ak mbañeel doo nekk kuy bañ nit bañ koo xam ci bakkan nga koy teg am na ñuy bañaate nag gis nit rek bañ koo te defula dara sax waaw day am waaye fa tabaarakallahu yoon wi tasawuf boo ci soobu ba ñu defar la di nga mucc ci loolee wa talabul ulwi ak bëgg kawe waaw bëgg kawe tabaarakallaahu boo sooboo ci yoonu tasawuf dina la dimbali ba bëgg kawe dootu nekk ci sa yow ndax bëgg kawe ci bakkan rek la aju te bakkan boobu lañuy ñuy defar wa xubbu sana doo bëgg ku la tagg bari na ñoo xam ne bëgg nañu loolu ku leen tagg waaye ilmu tasawuf yoonu tasawuf daf lay dimbali ba yooyu yëpp di daal di génn ci yow wal kibr ak rëy war riyaa ak ngistal mbokk yi rëy baaxul yàlla nee na rëy mbubb la maa ko moom man man yàlla su ko ko xëccoog man ma bàyyi kook yow boo dee ma dugal la safara ko xam nga ne rëy baaxul tabaarakallaahu iblis li ko yàqal bokk na ci rëy waaye li mu jaamu yàlla kenn dootu ko jaamu yàlla waaye rëy rek moo tax yàlla dégraté ko wàcc ko ba rëbb ko ba bu ëllëgee safara lay dem te la ko yóbbee mooy rëy kon mbokk yi rëy amul solo yaa ngistal ngistal tamit baaxut ngistal mooy lépp looy def bëgg nit ñi gis leen ma maa def lii maa def laa soo ko defee doo am dara ci yàlla da ngay def ba soom te bu liggéey doo am doo am fay kenn du la fay parce que nit ñi taxul ngay def yàlla taxul woon ngay def yooyu yëpp fa tabaarakallaahu boo sooboo ci yoonu tasawuf ba ñu tàggat la ba teg la ci yoon wi jikko yi yëpp da nga ciy mucc macha allahu taala mu ne wal xadab booy mer da ngay mer te yàlla tax waaye doo mer ngir bakkan waaw léeg-léeg nga gis kuy mer te teg ko fen bakkanam rek a tax muy mer waaye yàlla taxut soo mer te yàlla tax nag ma day gis ku jalgati lislaam ku jalgati diine ku def loo xam ne yàlla bëggu ko nga mer ca loolu yàlla tax nga mer waaye doo mer ngir sa bànneexu bakkan wa tamaa xembeem tamit du la dal wal buxul ak nay nay du la dal te nay mbokk yi baaxut macha allah am na boroom xam-xam bu ne soo mënee jàmm yàlla te nay doo dem aljanna kon nay xam nga ne baaxul garab la gu sax safara banqaas ñëw ba ci àdduna ku ci jàpp mu yóbbu la safara ni ki doonu tabe ba garab la bu nekk biir aljanna banqaas ñëw ba ci àdduna ku ci jàpp mu yóbbu la aljanna kon mbokk yi tabe loo am am solo la ñu bàyyi ko xel waaye nag yii la ci musal mooy nga soobu ci yoonu tasawuf moo la ci muccal ndax yoonu tasawuf bakkan lay tàggat te yépp ci bakkan lay gaar bakkan boobu xesee sell yépp dootu ko mënal dara day daal di mucc ci mboolem jikko yi mën a limal wa taazimul axniya ni ki noonu di màggal borom alal yi foo leen fekk di leen màggal di leen yëkkati fu kawe ngir lan alal bi ñu am ngir lan bëgg ci seen alal nee na boo sooboo ci yoon tasawuf ba ñu defar la ko am alal sax boo gisee da nga koy yërëm waaye doo ko ñee ndax da ngay jàpp ne rek alal ju bari ji ëllëg yemal xiyaam coono rek la koy jural ndeysaan da nga koy da koy yërëm waaye dootoo ko ñee dootoo ko ñeewati ba ba di ko tagg wal istihanati bil fuqara ni ko noonu tamit doo doye dal ñi ñàkk ndax bu fekkee danga xam yàlla soo gisee ku ñàkk da nga xam ne kii yàlla daf ko noppal ndax ëllëg yow ma xiyaam taxawaay baa nga régale ga du yàgg ci moom macha allah taala waaye loolu nag ku yegg ci yàlla mos dara moo koy xam waaye fekkee mosoo ci yàlla boo ñàkkee da ngay jàpp ne ñàkk moom ku ko yàlla defal rek dalaa toroxal loolu ngay jàpp fekk demewul noonu ndax mm, yàlla ay mbiram dafa nëbbu lu ci bari boo demul ba jubook moom mos ci moom dara doo mën a xam dëgg-dëgg na mel mu ne woon ak yu mel noonu mu nag fa tasawuf huwa attaxalli an irrazail wa taxalli bi anwaai alfadail nee na bu ñu waxee tasawuf mooy nga summeeku ci mboolem jikko yu doyee di lu mel ni soxor lu mel ni kiñaan lu mel ni ger lu bari bañ nit bëgg kawe bëgg ku la tagg rëy ngistal mer bakkan xemmem mm, loo gis bëgg ca loo gis xemmem ko jàmbat gu bari nay ah, di yëkkati borom alal yi di wàcce ñi ñàkk nee na yooyu tasawuf da lay da génn ci yooyu ba doo ci bokkati da lay ciy génne ba mu set wecc ci yow waaye daf lay ràngal nag ay ngëneel ay jikko yu tedd mooy doo soxor doo kiñaan doo ger doo bañ nit doo bëgg kawe doo bëgg ko tagg doo rëy doo def dara ngir ngistal doo merte yàlla taxut tabaarakallah doo xemmeem doo nay doo màggal ñi am alal di doyal ñi ñàkk ñëpp nga yemale waaw ki am ñàkk rek nga yemale doo doo yëkkati kenn ci kaw keneen kon gis nga tasawuf kon macha allahu taala dafay defar nit dafay defar nit moo tax imaam Junayd di waxoon ne a an yumitaka alxaq anka wa yuxyika bihi yaani an yumitaka an nadarika li nafsik wa yuxyika bi zikrihi wa munajatihi wa haza akmalu darajati tasawuf imaam Junayd di nee na tasawuf daf lay rey ci dëgg ba pare dundal la ca maanaa daf lay rey ba doo gis sa bopp waaye nag dundal la ci sa boroom ba foo tool toll tudd yàlla di wéetal yàlla di ko dee di deeyaleeg sa boroom fa tabaarakallah taw ne nag loolu nag mooy daraje bi gën a mat ci daraje tasawuf dem ba dootoo gis sa bopp waaye yàlla rek ngay gis ba boo gisee mbindeef sax jàpp ne yàlla bu taxaw ci sa kanam la ndax cër bi nga jox yàlla ndax alxalqu kulluhum ayaalullah nit ñëpp ay mbindeef yàlla lañu. ay njabootu yàlla lañu tabaarakallahu boo leen fonkee rek tabaarakallahu macha allah yàlla fonk la kon mbokk yi tasawuf mu ngi noonu ñu fondement ko nag ci sharia waaw bi aadaabi sharia lañ ko tabaxee ah, ñu tabax ko nag ci ah, jàpp ci teg tegginu sharia waaye nag sori lépp lu lënt wottu nag say xawaasul xams ba du def lu xaraam lu mel ni sa bët lu mel ni sa gémmiñ sa nopp sa loxo sa tànk tabaarakallaahu nga sàmm leen ba duñ def lenn lu xaraam tabaarakallaahu loolu daal mbokk yi mooy tasawuf mooy nag njëriñu tasawuf nag nee na islaaxul insaan zahiran wa baatina mooy fexe ba ba nit ki ci biir ak ci biti fexe ba nit ki baax ci biir baax ci biti moo tax mu ne fa inna suufi man tasfa min al kadr wamtala min al ibar nee na as suufi bu ñu ko waxee bu nekk yi suufiyanke la mooy ki nga xam ne sell na ci lépp luy tilim tilim waaye nag feesal na xolam ci lépp luy waar waaw wan qataa li ibadati rabbihi an il bachar mooy ki nga xam tamit dafa jóg ngir jaamu yàlla wan nit ñi gannaaw ndax nag bul fàtte ne al annaasu aadaun liman amal ilah nit ñi ay noonu ko dëgmal yàlla lañu soo dëgg dëgmale yàlla rek tabarakallah ñu noonoo la macha allah taala kon nag fa tabaarakallaahu loolu mooy tasawuf loolu bokk na ci mandargay tasawuf moo tax mu waxoon ne at tasawuf laysa tasawuf lubsu suufi tarqaahu wala bukaawuka in gana almagnuuna wala siyaax wala raqsun wala tarab wala tiraab ka an qad sirta majnuuna bal tasawuf an tasfu bila kadarin wa tattabi alxaqa walqur'aana waddiina wa an tara xaashian lillahi muktaiban ala zunubika tuula dëhri maxzuna nee tasawuf nekkul sol yére bu weex tàll kaala wa kaala gu weex tilim ah, tabaarakallaahu toog yor sa kurus dem ba sa yére tilim ba ku la gis jaawal laak dof hmm, nekkul ne tamit ak yuuxul ak ay yuuxu wala ay fecc wala ni wala nit ñi way ngay jooy neen loolu du tasawuf de ne tasawuf mooy nga sell ci lepp luy tilim lepp luy tilimu yaram ak tilimu bakkan nga set ci wicc ba pare top top deug top alquran top diine fun la fek nga ragal yalla bu baakha baakha baax li la recc nak ci ay bakkar sa di sa giruk dundu nga diko ko diko tit diko jegelu kon mbokki tasawuf mo ngi nonu kon tasawuf lepp yalla la tasawuf moy lu sel tasawuf moy yoonu yalla bu sel. moo tax mu ne usulu tariqi alqawmi ahli alxaqiqati hudaati lwara almahdiyina min xayri millati taharatu anfasin wa sidqu mawaddatin wa xisqun wa aadaabun wa tajridu himmati xam naa ne ñaari bayit yi tabaarakallahu buñ ko taab mayee rek ñu firi ko buñ ko taab mayul tamit fu ñu ci yem rek buñ ñëwee dellusiwaatee yeggale ko incha allahu taala usul jamu asl بمعنى الأساس الذي يبنى عليه غيره وقد أراد المصنف بالأصول في هذه المنظومة ما يشمل الأركان واللوازم والشروط والأحوال بنى أصول تيون تصوف موي جمع أصل موي أساس موي فندما بيغا خاميني تي لاني فندما يون تصوف وينك ويكت واي كات بي أصول في موي لي لامبو شارتي اك بونك اك مبير هناك فإن الأصول عندهم سلاسة عشر يعني الأصول عند أهل التصوف سلاسة عشر يعني فكل أنيت بتنجك من التوبة تموي توب وسورة التوبة الندم على ما فات والنية ألا يعود إلى ذنب فيما بقي من عمره وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان مطلب بها ساعة التوب مو nga réccu lépp أم ينبو سلنا دوتو دفلو sell nga bàyyi mooy yàlla ci sens bu fekkee daa mooy yàlla kooku mooy tuub mooy nag bi ci njëkk mooy tawbat wal xawf ak ragal da ngay ragal yàlla ndax nag yàlla moo jar ragal de gaañi waaw war raja ak yaakaar ko it ndax moo jar yaakaar it nag ndax mooy faj aajo yi moom yàlla wal xusn ak jàq waaw del jàq bu baax del tiit ndax dina tax lu bari doo ci dugg wal qanaat ak doylu njol màkk nee na al qanaatu kanzun la yafna doylu mooy magasin bu dul jeex wa ak dëddu da dëddu àdduna ndax ndax contraire dëddu àdduna mooy bëgg àdduna te àla xobbaha rasul xataaya si xaj maa bëgg àdduna mbooleem ñaawteef yi bopp ba kon dëddu àdduna kon bokk yi lu am solo la wal waraw ak sàmm da ngay sàmm it nag bay lépp lu xaraam lépp lu ñuy sib nga bàyyi ko wa tawakkul ala allah wa man yatawakkal ala allah fa huwa xasbu nga wéeru ci yàlla te ku wéeru ci yàlla yàlla doy na la sëkk wa sabr nga muñ ndax inna allaha maa sabirin yàllaa ngi ak muñkat yi njol màkk nee na asabru la yaati illa bi xayr muñ du indi lu dul yiw wa sukkur ak sant yàlla ndax la i sakartum la azidannakum yàlla ne su ngeen ma santee ma dolli leen wala in kafartum inna azabi la shadid su ngeen ma santul nag sama mbugal maa ngi tar lool macha allah taala kon loo bëgg a bari la bu la ko yàlla joxee sant ko wa jihaadun nafs nga xeex sa bakkan bul fàtte ne xare badar ba mu rombe njool màkk dina jóge na ci xare bu ndaw bi dem ci mag bi ak xare badar na mettee woon ñu ne ko ban mooy xare bu mag bi mu ne jihaadun nafs mooy xeex sa bakkan kon bakkan da ngay xeex ak moom génne ko ci mbon ak bëgg lu neex sinon rek tabaarakallaahu da ngay dem ba bi jaaw di gën a bëgg bànneexu bakkan di gën di mooy yàlla kon da nga koy teel a feral wa nafsu kat tifli in tuhminhu ala xubbi rida wa in taftimhu yan fatim hmm? mu ne wa rida bil qada lu yàlla dogal ci yow nga nangu bu yàlla dogalee ci yow lu neex nangul bu dee lu naqari nangul bu dee lu wex nangul bu dee lu baaxul it nangul <coughs> lum dogal ci yow nangul waaw loolu dafa bokk ci yoon wi bokk ci yoon wi kon yoon wi gis nga li mu làmboo fa tabaarakallaahu nee na wa tarkul ibaad ay tarkul iltifaat ma axwaalihim walaw maa laxda bihim li yaxsul altaxaayur baynahu wa bayna al uzlati allati hiya rukmi arkaan al arbaa fi qawli baadihim nee na nga beeru walis nit ñi waaye ban di xalaat ci nit ñi nag bandi di xaar seeni mbir waaye nga beru wéet di xalaat sa borom di jaamu sa borom sa xel nekk ci sa borom ndax annaasu aadaun liman amal ilaha nit ñi ay noonu ko dëgmal yàlla lañu te boo dëgmalee yàlla te mënoo taqal ko nit ñi doo gaaw a yegg kon soo beroo yi di leen xalaat doo gaaw a yegg kon soo beroo ba nekkatoo nit ñi ki nga war a xalaat mooy kenn te mooy subhanahu wa taala moo tax ne baytul wilayati qusimat arkaanuhu saadatuna fihi min al abdaali ma bayna sumtin wa atizalin daimin wal juuci wa sahri nazihi al xaali ne ne wilaaya yi dañ ko séddale ci ñeent bari looy noppi bari looy beru bari looy xiif bari looy fog man samatan najaa njool maaka ne ne ku noppi mucc wala ictizaal daiman beru nit ñi ndax boo jaxasoo nit ñi doo gaaw a yegg ci yàlla wal juux na ngoo xiif ndax soo dee regg doo tal jaamu yàlla nelaw rek ngay tal mais soo xiifee sa di nga a jaamu yàlla tey tabaarakallah sa biir dina am leer biir bi am leer mooy biir bi nga xam ne du lekk lu bari moo tax njool màkk ne nahnu qawmun la nakul illa najuu wa ida akalna la nashba ñun ay nit lan yoo xam ne du lekk loolu dañoo xiif te bu ñuy lekk lekk ba suur kon lekk ba suur bokkul ci sunnay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam biir da nga koy xaaj ñett bii nga def ci lekk bii naan bii nga bàyyi muy air nga cay nooy waaye boo defee ci ñaari lekk fecc lay benn ba ndox nelaw rek këll këlañ masha allah taala kon mu ngi non niki non tamit eh, bari loy fokk ku digi ñepp yi nelaw ngay tok di nafile di jamm yalla di zikkar koku ñent yi ku ci sax ta bayyi woko leg nga don waliyu ndax waliyu ah eh, sun mam Cheikh Al Hadj abdul sidda ba dafa wax ne du ci juddu du ci nday du ci bayyi lakin alamatuha taqwa gu dara raxul ne na yalla ta dara rek bu yagge nga don waliyu kon ak wilaya nit ku nek man nako fagul bopam mooy nag dafa am loo xam ne nag kiy tukki jëm ci boromam ki bëgg am boromam jubook boromam mos ci boromam dara dafa am lu mu war a taqoo waaw te mooy ki nga xam ne day wër boromam nee na ba ci njëkk mooy sëriñ faaw nga am sëriñ ndax sëriñ mooy dalil mooy ki lay teg ci yoon wi ngay jaar ba mën sa borom yoon ku ci tegu di tukki faaw nga am yóbbal nee na yóbbal ga mooy ragal yàlla soo amee sëriñ te ragaloo yàlla it doo dem boo ragalee yàlla te amoo sëriñ it doo dem wasilaax da am gànnaay te mooy njàpp. waa taqoo njàpp wax naa la sànq ne la kuy kuy taqoo njàpp liggéey du la jàpp kuy taqoo njàpp liggéey du la jàpp gis nga ñoo bokk la ñuy terminé terminé nekk noonu was siraaju wa zikr làmp bi lay niital nag mooy zikkar zikkar mooy làmp bi niit yoon wi ba nga xam fi nga jaar wal matiyatu wa hiya al himmatul qawiya warwaay wi nag mooy yitte ju kawe ji nga xam ne moom ngay amee pour mën a jaar ci yoon wi kon fa tabaarakallaahu amal sëriñ bu la teg ci yoon wi am ragal yalla muy sa yobbal am sa njap muy sa ngànnaay muy sa ngànnaay am sa di zikar muy sa làmp waye nak am yitte ju kawé muy sa way kon nak lepp matna na nga teggu ci yoon rek dox ndank yegg ci sa borom dara dula la kon mbokk yi mu ngi non yon tasawuf moy yonu goor yalla yi ñi xam yalla deug deug xam yalla ñoy ñoy fag yon woom mu tasawuf waaw motax fal xaqiqatu hiya al ulum al batiniya moo tax dañuy wax ne sax ci réalité tasawuf mooy xam-xamu baatin dëgg xam-xam baatin nag dañu ñëpp ak mën a am bu fekkee xam-xam zahir rek nga am qaala laaw qaala rasul rek nga xam loolu rek nga xam li ci kaw téere yi li ci biir téere yi xamuloo ko lu bari da koy diingat da nga koy weddi danga koy contour fekk nag ndeysaan ñàkk koo xam rek moo tax nga weddi ko waaw waaye boo ko xamoon doo ko weddi waaw nit nag bari na lu mu weddi da ko xamul rek waaye loo xamul neel xaw ma ko rek waaye am na ñu ko xam loo mënul it neel mënu ma ko waaye am ñu ko mën waaye loo mënul kenn mënu ko loo xamul kenn xamu ko ah du noonu nag faaw ñu nangul ñenn ñi li leen yàlla may nangul ñenn ñi li leen yàlla mën loo ndax nag bu ñëpp euh, bokk yemoon rek am ñu gedd seen cër sayduna muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla daf koo xamal ñetti xam-xam wa qad ruwiya annahu sallallahu alayhi wa sallam uxiya ilayhi salaasata ulum ilmun amarahu llahu bi ifshaa'ihi wa huwa ilmu al-ahkam وعلم خيره الله فيه وهو علم الأسرار وعلم أمره بكتمه إلا عن بعض خواصه وهو علم سر القدر الذي قال فيه ابن العربي إن سر القدر لم لم لم يطلع الله عليه نبيا مرسل ولا ملكا مقرب إلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وقد أطلع الله عليه بطريق الوارثة المحمدية ndeysaan yonent yàlla Muhammad yàlla daf ko xamal ñetti xam-xam xam-xam boo xam ne daf ko digal na ko siiwal ñëpp jot ci te mooy xam-xamu ak xam boo xam ne daf koo wax ne ko euh, dañ lay tànnloo la neex nga siiwal ko ba la neex nga nëbb ko te mooy xam-xamu secret ak xam-xam boo xam ne dañ ko wax ne ko na ko nëbb lu dul ñenn ñi nga xam ne nii ñoo ko jagoo te mooy sirul qadri mooy xam mu dogal Ibnu Arabi nag nee na xam-xam boobu yàlla xamal na ko ko ci dono ci xaqiqatul muhammadiya na nit yàlla yi nag parfois ñu xuus ba dugg ci xaqiqatul muhammadiya ba am fa loo xam ne fa tabarakallahu ndax boo demee ci abdul xaadir jilaani yi ci xasid ti tiiram ba mu nga naan aljana ñu ngi ko defaral ci ñu ngi ko defaral ci sama leer hmm? nit ñi ëllëg ci sama barka lañu duggee aljanna ko bu ñu ko laaj cheikhu tidiane dafa wax ne boobu dafa xuus ci xaqiqatul muhammadiya di waxee làmminu sayyiduna muhammad ndax bul fàtte aljana ci leeru yonti yàlla muhammad lañ ko bindee safara yi ci leeru yonti yàlla muhammad lañ ko bindee waaye kër nit ñi muy dem aljanna yi ci leeru ci barke sayyiduna muhammad lañ demee aljanna comme moom daa dugg ci xaqiqatul muhammadiya di waxee ci làmminu sayyiduna muhammad day mel ni moom mooy wax fekk moom waxul rasulillahi mooy wax la mbir yi demee kon fa tabaarakallahu ibnu arabi xuus na ci xaqiqatul muhammadiya ba xam ci loo xam ne sax yàlla xamul ko woon yonent yi ku dul Seydina Muhammad xamula ko woon malaayka yi ko jege woon fa tabaarakallah xam-xam yooyu nag bu ko nit yàlla yi xamee di ko doxal te yow yeggoo ca la ngay man rek mooy weddi ko bu fekkente ne mandu woo soo mandoo nag da nga naan a ah, ñoom ñoo ko xam waaye ñun xamuñu ko daa nisful ilmu may la adri genn wàllu xam-xam mooy xaw ma waaye nag bu fàtte ne wa fawqa kulli zi ilmin alim loo xam-xam am na ku la gën a xam kon loo xam rek am na ku la gën a xam kon xam-xam yi noonu la ñu moo tax wa lihaada istaamala suufiya alrumuuz wal ishaaraat li yasuuna al asra an gayri ahliha loolu tax ñi nga xam ne ñoo nekk yow tasawuf am na ci yenn xeet xam-xam yoo xam ne ay ramz lañ ko def dañ ko abrégé yi def ko di ko junj rek duñ ko wax ba mu leer xam nga tax dañuy bañ ñi nga xam ne yeewuñu xam-xam yooyu di ko jël waaw ndax am na xam-xam yoo bu nga fësaloon ci yi bind ko mu leer ñëpp ko jot saay yeeg ñëpp a ko jot tabaarakallah waaye dañ ko def ay junj yi def ko ay ishaaraat yi ñu def ko ay ay abrégé def ko ay ramz ay rumuz nga xam ne balaa nga caa yegg rek faaw nga jaamu yàlla jaamu yàlla jaamu yàlla ba am maqaama yee yoo xam-xam yooyu jël koo mën a xam bu ko defee nag mën na la koo xamal ci nelaw mën nañ laa joxoñ góor yàlla nga dem ci moom mu xamal ko fa tabarakallahu mën nañ la ko ilham tamit nga xam ko ci côté bu nekk mën nga ko ko xam waaye fa tabarakallahu masha allahu taala mu ngi noonu kon nag mbokk a tasawuf mooy yoon wi nga xam ne masha allahu taala gaaw na lool ci jubóole la ak sa boroom gaaw na lool ci nga xam sa borom gaaw na lool ci nga yegg ci sa borom mbokk yi at tasawuf ñi ci soobu wax naa la sànq na leen seen yóbbal mooy ragal yàlla gis nga nit bu ragalu yàlla mën ta defar kenn loo bari bari xam-xam te ragaloo yàlla doo defar kenn tabaarakallaahu tax ndax li ngay waare ak li ngay jëf de woroo mooy tax nit ñi duñu mën a gindiku li ngay waare yi du am leer ba mën a dugg ci xol yi ba convaincre nit ñi ba mën a génn ci la ñu nekk parce que amuloo leer waaye nag soo bëggee am leer da ngay ragal yàlla loo wax mu dugg ci xol yi waaw moo tax borom xam benn borom xam-xam ne ne benn aarif billah mu ne wa gayru taqiyin yamuru nnaas bi toqa tabibun yudaawi nnaas wa huwa marid nee na ragaloo yàlla di digal nit ñi naan leen ragal leen yàlla nee na mu ngi mel ne docteur buy faj nit ñi ba feebar moom te yëgu leen daa feebar waaw si de xaaj malik waxoon na ko ci zayru qulub ara ka sirajan yaxruqu dahra nafsuhu muniran lil ghayri in zaaka muhib gis naa la ngay lamp yaa ngi leeral ñëpp waaye yaa ngi sa bop comme sondel day leral nit ñi di lak bopam may lol nak mbokk yi la kon nak nit da ngay fexé bo boy leral nit ñi nga leral sa bop d'abord yalla neena ci alquran kuntum khayra ummatin lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar yenda yene ngeen ngën ji xeet wépp tànn naa ci xeetu rasul la ñu gën ñëpp waaye ci sart nag ngeen digle lu baax di teral lu bon pare gëm yàlla gëm gu gu biir moo tax bu ne boo ma ci bayit yi sànq mu ne usulu tariqal qawmi hmm? mu demee ci ba ci biir mu ne mu ne euh, taharu anfasin wa sidqu mawaddatin waaw usul ahli usulu tariqal qawmi ahli xaqiqa hudaatil waral mahdiyiina min xayri milla taharu anfasin wa sidqu mawaddatin mooy nag taxaru am fasin wa ma atafa alayhi nee na nag laabu bakkan soo ko déggee mm, mu ne laabu bakkan mooy caabi bi nga xam ne moo la yeggale ci martabay ku texe waaw laabu bakkan mooy caabi bi lay ubbil yoon wi ngay jaar ba mën a yegg ci martabay ku texe ni kii ni nga xamee ne euh, laabu bitti noonu lay nekkee caabi bi lay ubbil pour nga mën a jaamu yàlla ndax boo amee jana boo sanguwul farata jàppuloo doo mën yàlla soo su njàpp tojee tamit yeesaloo njàpp doo mën yàlla kon nag njàpp mooy caabi bi lay ubbil pour nga mën a jaamu yàlla ni ko noonu laabu bakkan laabu biir mooy caabi bi nga xam ne moo lay ubbil yoon wi ngay jaar ba mën a texe kon taxaar en face ni ko wa huwa ibaratun an taxallus min az-zunubi wal xafalaat mooy li nga xam ne it moo lay muccal ci ay def bàkkaar ak sàggante waaw moo lay ubbil moo lay musal ci def bàkkaar ak sàggan sa bakkan bu laabee dootoo def bàkkaar te dootoo sàggan wa tabaacuda amma la yarda baari ul ardi wa samawat ak sori lépp loo xam ne yàlla mi bind asamaan ak suuf te ca kontaan nga sori ko ko defee nag euh, laabu bakkan boobu la nag moo lay dimbali ba doo ba du la doot la mën a direeti moo lay dimbali ba bakkan bi dootu la mën a direeti di la yóbbu ci soxor wala iñaan wala topp seytaane wala topp bànneexu bakkan parce que amatul doole parce que set na wécc laabal nga ko nërmil nga ko moom bakkan daanal nga ko waaw la maam Moussa waxoon si di xaaji Maalik ne ko ruttan nufuusa li diinillahi tarbiyatan iblisu mabtasamat minhu lmakaidu mu ne ko bàyyi tàggat nga bakkan yépp jébbal leen seen borom ba ñu bëgg yàlla di jaamu yàlla yàlla saf ci seen xol ba tax iblisu muuñul ndax ay pexem yépp a échec macha allah taala te Sidi Haj Malik yoon wi mu jaar ba tàggat bakkan yi mooy yoonu tasawuf kon mbokki at tasawuf mooy lu sell kon daa wuy tur wa kon mu ngi noonu kon fa tabaarakallaahu mm, yal na yàlla dooli sutura yal na yàlla dooli xéewal ak barke xam ne daal yoonu tasawuf mooy yoonu góor yàlla yi mooy yoon nit ñu baax ñi tabaarakallaahu ndax mooy tariqatul abraar mooy yoon mooy yoonu gaañ yi nga xam ne dañoo baax gaañ yi dëgmal seen borom tabaarakallaahu kon nag yoon la boo xam ne euh, ku ci jaar ngaa jubóog sa boroom nga laq sa ngërëmande yalla ndax yoon la boo xam ne boo ci do gis aduna ay taru aduna lolou dula la intéressé li lay ñor rek moy yalla yalla rek lay saf lu dul yàlla ñor la kon nak yoon woowu yoonu bax la yalla nañ ko yàlla wërsëgale te tàggat suñuy cër bañ man ko jëfé ci daraje sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu leen di bal haqta di leen bal di leen ñaanal jàmm xéewal sutura yalla nañ ko buur yàlla defal ñu jox leen dig daje ci yeneen émission alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu